saraax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey ñëw ak perspective de l'arène en 2020 sunu lamb ba mu xëyee benn kàddu la joxe mooy l'année de toutes les interrogations dafa xëy sampi laaj ba xam ndax danañ ko tontu ci atum 2020 bi ba ca njëkk mooy Modou Lo Ama Baldé se tiendra-t-il ndax combat Modou Lo Ama bi ñu doon laam-laamee ba ñu taxaw ndax danañ ko sottil dana am ci atum ren bi Balla Gaye 2 Boy Niang 2 verra le jour combat ba war a dox ci diggante Balla Gaye 2 ak Boy Niang ndax dana taxaw danañ bëre va-t-on la revanche entre Bombardier et Eumeu war a ci Goneg Mbour gi b ak Eumeu Sène borom taay si nga ndax dana taxawam déet rëg-rëg gardera-t-il son invincibilité rëg-rëg ma amagul defet ndax mbër dana ko daan ren ndax moom docteur Alioune Sarr dana continuer di nekk ci boppub CNG bi premier numéro sunu làmb ci at bu bees bi loole la xëyee rax ca dolli ne am naa fukki laaj yoo xam ne war naa ko laaj ci atum 2020 bi ndax dana sottem déet ginnaaw bu mu jógee ci Modou Lo Ama Baldé jóge ci Balla Gaye 2 Boy Niang jóge ci Bombardier ak Eumeu Sène jóge ci rëg jóge ci Alioune Sarr yeneen laaj muy laaj mooy Pa Abdou dana wutal Tapha Tine adversaire moom Pa Abdou Fall mi waxoon ak ba ñu juboo ci bëreek Ama moom Pa Abdou Fall ndax ci atum ren bi dana mujjee amal adversaire kii di Tapha beneen laaj ba mooy Gris Bordeaux nuyóoraatil la ngemb ndax Gris Bordeaux troisième tigre de Fass dana am combat ren gannaaw ba mu jógee ci defet digganteem ak Balla Gaye 2 le 31 mars 2018 làmb yàkkamtiwaat nanoo gis Gris Bordeaux mu takk ngemb tooyal xaftaanam Papa mi ñu dàqee ca Fass le 18 décembre passé bii ñu génn moom gonek père ba bi ndax dana taxawal Baldé combat ba sotti na ak lu làmba ngi ñaan laaj ndax Luc Nicolaï dana génn ca mbir ma ci atum bi saison jàll na teew naa ki mbiram la saison nuyoo mooy grand combat yu avorté ba ca njëkk mooy ba doon dox ci diggante Mori Cargo ak Cheikh Super Jamono démb ci arène grand combat de l'année Serigne Modou Niang moo ko taxawal waaye mujj la sotti Cheikh Super Jamono waaj naa ki mbokkam ñëw ba ca biir làmb ja amee blessure Mori Cargo ma remplir contrat jën jam ko boppam ndax tey na koom teyu ko mbër mi rek ko mën a expliquer en tout démb gonek écurie Mor Fadam gi noonee la demee ba bëréewul démb écurie Mor Fadam ci at bu benn ba Cheikh ma nekk écurie Mor Fadam waroon a bëree grand combat dañu koo daan par forfait lagandong bu écurie Mor Fadam Boy Kaza bu tay si nga da koo daan kilo mburu bu écurie Mor Fadam ñang baalo bu dóor dóoraat da koo daan seen benn victoire ba ñu am ca journée ba caat maa leen te mooy diggante Ablaye Diop ak Ousmane Ngom bile combat Ousmane Ngom moo blessé moo tax mu yàqu bu ñu jàllee ci lit sans frappe ba le 27 ba le 30 décembre 2019 foofee ca yaayam seen galaa maam jegaan njaay bu marlot moo remporté mise ba foofee ñaari catégorie la woon poids lourd ak poids léger ba ñoo jot a bëre maam jegaan njaay jël drapeau ba lourd yee jotu ñoo bëre ndax ñaari mbër képp ñoo fa bindu woon le 30 ba le 31 décembre foofee ca Koguyooli saaxa nduur nduur moo jël ñaari ñoom it gisuñu poids lourd ko ci kaw Badara quatrième première gala ci at bi Boy Faye moo ko jël nekk premier vainqueur en atum bi daal ni ko Boy Faye doore dal na xel première gala ci at mi mu jël ko di xaar leneen fa ñuy jeexale mooy diggante rëg-rëg ak Malick gannaaw ba ñenn ci amateurs yi soxlaa combat boobee di ko laam-laamee te rëg-rëg bañoon ne du bëreeg Malick mbir ma am na beneen tournure rëg-rëg léegi noppi na ngir jàkkaarloog Malick Niang buñ ko feyee kase bu baax journal ba xamle leen ñu jël combat ba jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci ëttu yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah